Aliou ñaan en tant que jeune frère en tant qu'ami, en tant que collaborateur nga talal loxo la Diop ak Bougazeli ngén and et inchallah monsieur le ministre sa mission bobu du jafe Ma ngi taxaw fi di yëkëti suma loxo. mangi taxaw fi di yëkëti sama loxo ndeyjoor di wax ne maa ngi koy tàllal Fall Bougazeli di talal la Lat Diop di len balu ak di len bala di len wax ne danañu waxtaan waye bu fekke waxtaan bi ci man lay jafe man suñuy waxtaan sax damay nopi bal ma rek lay wax bal len ma bal len ma parce que man ben objectif la am moy le président jàll premier tour man jerejeuf jerejeuf Aliou li le président Macky Sall di xaar ci yow le le président Macky Sall di xaar ci yow inshallah dina ko jotali mais je peux te dire ñi nga tudd léegi muy Lat Diop muy Bogazeli man sam bopp waxtan nak ñom pas plus tard ce matin ils sont dans ses dispositions donc dama bëgg les militants de Guédiawaye ngeen c'est les responsable pour que unité Bobu gëna mëna fess gëna ne me ñun ñëpp ñu mën a ànd jàppale président Macky Sall dimbali ko ci liggéey géejawaay géejawaay am na ay projet yu fi président Macky Sall tàmbali Promoville dina fi dugg dégg ngeen TER train baa ngi ci bato bi mais li koy complété mooy BRT BRT Inch'Allah, pour la population ce Géejawaay tout tudd ngeen fi l'université. université wax ngeen ko est nga fi toutes les actions sociales tout à l'heure je suis avec ak maire dina am ay communes yoo xam ne dinañ ko étudier parce que nous aussi le ministère des finances Nous ñu xool